keroog moom bég nañu mbégte moo xam ni seedee lu ñu ko kudul Serigne Touba ndax foofee mooy dàtt ba foofee mooy sunu cosaan biir kër Serigne Saliou foofee la nu miin foofee la nu gimmee fa nu xame lépp fa ñu sunu bàyyi toqantal fa nu defale lépp moo tax keroog bi ñu ko joxee wax dëgg yàlla na ma ko waxee woon rek sama xel daa dem ci sunu jàmbaar ja moom Cheikh Béthio xam ni moom moo waral loolu yi cant gi lépp mooy mooy mooy borom ci la ñu euh, doxe noonee euh, jëfe ko ak ci ci mbégte nit ñi nee na li leen yéem mooy keroog ci sëkk ba biir kër sëñ Saliou da ngaa takk sa digg di yanu ci bool yi ni taalibe di nga ko defee loolu ah, ah, yéem na mbokk taalibe ah loolu nag warul la yéem mbokki taalibe man loolu laa mas a dëkke ak ñoom man liggéey bi ah euh, ku xamoon sëriñ bi mm-hmm. amoon na fulla ju toll nii daawul yar doomam ci ci bañ a liggéeyal sëriñ bi waa déedéet ñun danoo masa laxasaayu ànd ak moom li ñuy lu ñëpp di def moom lañ daan def ci loolu rek lan lañu yar ci loolu rek lañu xam te ci loolu la ñuy des ah, waaw